fii nag tey jii su ma fi ñëwee Guigui moom fi indi Guigui xale bu rafet la xale bu rafet xol xale bu engagé su may wax ci mooy artist bi jëkk ci Sénégal way ci li nga xam ne ne ñun moo ñuy yëkkati Ligue sénégalaise contre le cancer muy way ci cancer du sein donc tey jii su ma oowee ci lancement wu foog ma ñëw taxaw parce que mooy ki nga xam ne ne moo xam souffrance su malade du cancer yi boo def ci album. alors yaay fan euh, ñun ren jii ñu ngi ci sañu onzième édition octobre rose xam nga euh, ligue sénégalaise contre le cancer euh, mi ñu ngi ko créer woon en 1985. bi ñu ko créé en 1985. euh, mu connaître une longue période de yi ñu relancer ko en 2009 bi ñu ko relancer ba léegi nag yàlla jàppale nañu ba nga xam ne ne def nañ ci ay jéego euh, xeex bi def nañu ay plaidoyer yu bari euh, gigi bi wax affaire euh, radiothérapie boobule benn moo fi amoon te moo taxoon association mboobu ñu mu juddu ba léegi dem nañ ci ñetti appareil dans le public Euh, ñu dem a dem a dem ba nga xam ne li daan gën a sonal malade du cancer yi muy euh, fajum chimiothérapie bi ñu dem ba chimiothérapie léegi pour jigéen ñi mu gratuit donc euh, combat bi dafay continuer te li li ñuy gën a def liska mooy ne yeete nañu askan bi ba jigéen ñi ragalootuñu ñëw saytu seen bopp loolu lee c'est c'est une avancée mooy ne bu njëkk ba foo tuddee woon cancer nit yi fëgg seen nopp ñu dem ba jigéen ñi léegi ñemee ñëw suñ leen ne ñëw leen ñu dépister leen ñu ñëw dépister loolu kon nag dañuy sant yàlla. difficulté euh, yi ñu am mooy difficulté financière parce que LISCA amul. Euh, Euh, liggéeyul pour am xaalis parce que euh, xaalis bu mu jot ci ay partenaires am daf koy delloo askan bi donc 2017 euh, la ñu commencé am subvention ci état Sénégal muy 10 millions la ñu am te ñun suñu budget fonctionnement kese c'est nous some à 18 millions donc xam nga loolu am na gàpp léegi suñu événement yi ñuy organiser dañuy wut ay partenaires donc dañuy dem démarché partenaire nekk ñun lii la ñu bëgg a def ñoom ñu d'accord ci ànd ak ñun bungi ñu ci suñu ay programme de dépistage ak de sensibilisation. accompagnement bi ak état. Euh, gis euh, non euh, loolu ñun xëy na moi je fais pas de mais je soutiens euh, je remercie le président de la République parce que ay président jaar nañ fi avant moom. mais bi mu nekkee fii depuis 2014 moo jàppale euh, lutte contre le cancer ba mu agsi fii mu agsi parce que 2014 métti woon na ci ñun naruñu woon def octobre mu sant ay ministre mu ñu jàppale ñu euh, mu déglu suñu plaidoyer ba malaat bi euh, seen faj commencé na oyof parce que accélérateur de particule boobu muy radiothérapie euh, fii am na benn dans le privé mais foofu la soo fa demee ay 2 millions et quelque nga waroon fay ñu ñaan ko ne ko 2 euh, millions benn malaat mënu ko fay mu nangu ko bàyyi ko ci 150 000 donc am na ay jéego parce que am nañu ay nopp yuy déglu plaidoyer yi nga xam ne ne euh, moom la ñuy def mais loolu doyul parce que euh, balaa ngay faju ci sa cancer da ngay def dépistage euh, da ngay def diagnostic diagnostic boobu lay daa fay entre trois cent mille mooy li néew ba cinq cent mille pour ñu wax la ne sa cancer bi lii la te nii lañ koy fajee donc balaa ngay tàmbali faj fajum cancer bi rek daa dépensé cinq cent mille nga ñëw ci chimiothérapie bi nga xam ne ne nag heureusement que léegi c'est gratuit pour les femmes parce que avant il fallait payer au minimum neuf cent cinquante mille yenn saa yi nga dem ba six millions pour sa chimiothérapie léegi loolu gratuit na mais ba tey des parce que soo defee sa chimiothérapie faj bi jeexagul foog ñu opérer la opération boobule dans le dans le public da ngay fay plus de trois cent mille soo demee dans le privé yenn saa yi mu am ay difficultés dans les hôpitaux publics foog malade ñu orienté leen ci clinique privée yi yooyu le foog ñu fay ay euh, cinq cent mille un million loolu difficulté la donc radiothérapie bi tamit euh, foog nga nit ki fay ko te 24 séances ngay def yooyu yëpp jafeñ yi nga xam ne ne malaad du Sénégal yi am cancer euh, dañ koy dund te dund bi métti na te malade yëpp dëkkuñu Dakar euh, loolu moo tax ñu am benn projet surtout période nawet bi ci la malade yi gën a sonn parce soo jógee li ma tàmm di wax dëkk boobu dam leen yëpp du jugee fongole mi parce que moo gën a sori ci fi ma dem ci Sénégal nga ñëw ba Dakar te amoo fi mbokk bu la fu la dalal hôpital ngay fanaan période nawet bi malade yi dañuy nëbbu bëccëg bi dañuy xool fi ñu mën a nëbbu su guddee ñu lal ci biir service yi lal ay euh, carton pour fanaan loolu dafa metti euh, donc loolu ñuy ñaan état bi ak toutes les bonnes volontés parce que foog naa ne waruñu xaar sax état bi parce que LISCA moom xaarul état bi ba mu tàmbalee lu tam parce que Sénégal am naa ñi nga xam ne ne yàlla dimbali na leen yàlla may na leen koom mun nañu jàpp ci xeexum cancer ba euh, dindi euh, coono malade du cancer il fi de nit ki xalaat naka la ñu mun a xool naka la ñu mun a def ba malade bi ki am cancer dina faju te du yëg mettitu faj bi loolu de am na eh, xam-xam yaa ngi fi parce que suñu tegee économiste yi mun nañ ci xalaat ñu xool xool ak eh, eh, assurance yi xool ak couverture maladie universelle comme Europe comme bitim réew parce que caisse de sécurité sociale mooy jël en charge seen faj ba nga xam ne ne bitim réew ku fa feebar da ngay faju te yow doo ci génne ci sa poos loolu mun nañ ko am rax ci dolli am na ay pays yi nga xam ne ne sañu naataango la ñu ngi ci biir autour du du Sénégal foofu la ñoom naka la ñu def ba traitement wu cancer gratuit ñun war nañu mun a xool ci ñoom ba fajum cancer gratuit au Sénégal donc loolu laay doon ñaan parce qu'il y a des dames qui des, des grandes dames qui sont cachées dans l'ombre mais il faut qu'elles se manifestent qu'elles accompagnent la LISCA parce que Guigui quand elle est venue vers la LISCA elle venait de débuter on la connaissait pas elle est là et elle elle s'est engagée à lutter contre le cancer auprès de la LISCA et elle a mené des actions di def ay action dans son quartier de sensibilisation de dépistage loolu jigéen yu bari mun nañ ko Euh, dëgg la noos bi baax na mais yenn saa yi nga delloo askan bi njukkal euh, Guigui ma Guigui maa ngi lay sant di la gërëm parce que li nga def ci fi nga dëkk loolu le euh, foog naa ne fi mu dëkk ñi mu dëkkal xam nañ ne elle fait des actions sociales te chaque fois dafay boole Liska. ci ay journée de dépistage loolu maa ngi koy rafetlu ñu terminer rek ak euh, message bi ak appel bi ngay lancé à l'endroit des femmes yi nga xamante ni xëy na dañuy am kersa wala di nëbbu ak euh, maanaam tawat bañ a dépister. Euh, naa ne léegi jigéen yi ragalatuñu dépister donc maa ngi leen di ñaan soo leen déggee soo leen amulee moyen pour dem dépister foo leen déggee dépistage gratuit. ngeen dem ñu saytu leen te euh, Ligue sénégalaise contre le cancer suñu nemmeeku ci yow dara dañ lay bunge ci sa faj donc kenn warul ragal cancer cancer euh, euh, ñu bàyyi xel yu ñaaw yi ñu daan am dañ ma liggéey dañ maa korte loolu feebar buy ñëw ci nit la te suñ ko teelee gis danañ ko faj ba nga wér péng te doo faatu